ndaraba dana ko jeex luutina oɗo ñalawma kon ceerno o wi ko ceernomo sam ide ñaanal moustapha ko nduwonɗa moustapha gom nunde ndi nga xamee o wi minen kay no nganndirɗa nga bigey no beltinɗa ci ham tafsimo o wiwa dañde tafsir ko no yidde noone wax ne minen de emin mbiya kun hamu toon ceerno samos garano ceerno mouhamad samos fun jëm o wi holtomin fay waaw nuyu noonu wax bu nu xamutoon ceeb. nuyu de ceeb. neex na mu. nañ ko yaakaar nañ ko yàllaa ko def allah woni ɗum e di bekki oyi belti kadi di ko yëgal aɗa min tintin suñu wajjur o wi jinnaɗame bu baax moƴƴo woo xam ne xoolam ganduɗa ɓerde xelam hakkille ma xalaatam miijo ma kartafte moustapha altami kartir moustapha tan mooy ceerno mouhamad lamin woni ceerno mouhamad lamin ɗum njabootam ne wi demba ba bay def bu makko gila hanki fii xelam fii rek hanki o nontinin min ngay toon o haaldi amin alhaali fiyaro ci ballal makko tokkiniiɗo an hannde ɓesgo makko e almuɗɗe makko ko wittudal ngal janngata sanni janngata tima sumana wiyaro ɗin ceerno abad tidiane ba ene jooɗi ceerno ko makko ceerno ahmadou dane jooɗi denndaangal ɓesgu ceerno cheikh ɗumen ɗon jooɗi e jonte ren hikka bi jëlee décision bi yóbbu di yebal njabootam maaro. dem seet. kon ni nga ñaata yi ko ma dawal njahooɓe faas daf ne kii may def mu nekk moo leen di. on dit moom mbattal yoon yaa dee moon faam. mooy Mouhamadou Moustapha wala xalifa Mouhamadou Moustapha. dindi biir. itti biir. ak yóbbalam yëpp. kon nawatu mu góob. na ko jiiteen njaboot yi alhamdulilah jaaraay bés bu gu. ngeen dem si àll bi ma si Moustapha ne ko daje mu am ay naan. o yi jaram gan tuuti ada an gan tuuti Thierno Moustapha Judy. mu ne ko o wiimu. bien. o yi bio. bu la neexee. ay saa welam. joxal sa rek. sant million bu la neexee. sànq bu la neexee. waaw ah, benn am mayeel rocci bu la neexee. waaw ah, benn am lakk ba ñu taafuwaat. kon nag mu doon ceeb ñu ngi lay xamal ne nga ñu doon doon ñu ngi sàkk nuyu. dafay am ba kàmbee ne. jullit ñëpp doon demee bopp. ñu ñaanal la doon ceeb bi doon na doon duñ ceeb Mouhamed Samba mu yàgg. ceeb Samba ak booy lu ak yàggam. waaw booy bul maa doon. njëriñal diini diini ko na foori diini. njëriñal tariqa ko na foori lawul ci njëriñal jullit ko na foori fuuta koobe ko na foori juul. bon njëriñal doomu aadama ko na foori fuɗɗoɗaade tuulɗo ene naftoro calmo massama kono noon noogi ñaan o wii ɓe nduwo lim ñaanan moustapha wi ko nduwonoɗa moustapha yanno ko yo allah defal moustapha allah waɗa ɗum ceerno moustapha waye yannam fi yakki yimɓe ɗam ɓooy ɓooynoɗo aan ceerno moustapha e ɗamdagal julɓe ɓe ɗum ɗum ɗaɗi en ñaa o wi kon ɓooy ɗo sun hel dalɗo haqqilamente amni garanti min jogi defa rawten tibbe sa teytino ɗo ñalawma hannde o li ren way kamɓe yimɓe yokkan woni kumɓe e santa yidde gërëm yertane e santa di gërëm eɓe jerta ɓe man kemɓe ci doomi tagi oto e ɓiɓɓe wuro ngo muy mbati maari waɗi mbati maari momin ki yimɓe ci jimmiri politique jambarla migi ñaan momin yalla ko yalla fay yommu moƴƴere di sakko en ngoro men ndi ñaanal ko fulɓe fof yo ndonamo li moye kaddo e ɗum woni konngol salamu aleykum warahmatullah ma ɗo wat duwawa tan acıbe yıldırır. jaraw jaraw jaraw hamad ene den no ko proof la tam e ko buri suugal jaraw hamad sama yalla ko baje ko wala e sey ba be na don jamiri jaraw don de na juuta e e gassi be yimbe ne e kam be e sharif e ceerno mouhammad sama so o wi o jabano khalifa o o wi khalifa o ene ɗo mboɗe khalifa ɓe migit himɓe nen ɗo moni hittem hit migit hamde mone tawi enen mone ñun tewtiɗa mone rawatina yow tewti ahlul beyti mone rawatina wakir yoninte ay minen mone gis ño ñoom ko onon min ligganto mone ñun yelluɗi liggen ay minen mone ñun ko onon min lomtoto mone yelluɗi wuutu ay nattu mu ne nit aɗa manka mu ne nit da ngay manki so allah timminiima mune waawi ɓula yalla battale aɗa manka mune to ɓeyi mbañ so a nawi hoore ma mune boo yobbo so bopp to allah nawma mune foo kamde falala yalla yobbo timmuɗo ko nden manka mune kamat bomalay mañ to allah nawma mune fiila yalla yobbo so a nawi toon hoore mune boo yobbo fof so bopp timmal ma mune fak mat condemnement wona boobana e mbañi hay kanko to foti nawriyaade ɗo wona gifde moom fimula kono min nawi muɗum wona yoppuninde goo o nawata toon hoore wona ɗoko yobbu goppam minen fof emin ndaara wona ñon ñop nigi xool emin fof eɗen ndaara wona ñon ñop nigi xool baba tafsir moustapha wona soni wat mam tafsir moustapha e makko si moom yo jooɗana en wona nanu toogal fof kono aɗani komin ndaara wona wawi gifde lu ñuy xool martabatu sharaf wona martabatu sharif martaba